mbokk yeeg xarit yi safoo di seetaan Sénégal TV dal leen nag jàmm ci Today News yoon bii ngeen di gis nag moo jógee fii di Padoa daal di dem fële ca échangeur Hann gis ngeen ne autoroute à péage bi wóorul ci nit ñi nga xam ne ñoo koy traversé ak seeni i tànk mais terewul ñi nga xam ne marché lañ dëkk ñoom dañuy préféré tëb mur bi daal di jéggi autoroute bi ndax nee nañ pont bi daf leen sori loolu képp ñëpp xam nañ ne nag ñàkk kaaraange yi bëri na fi loolu ndax lampi du tàkk te am na ay agression mais nit ñi dañuy daal di gëmm seeni i bët daal di fi jaar ndax nee nañ pont bi dafa sori torop pour di daal di di wiiri jël pont bi am na ñoo xam ñom ñu taataan seen xalaat ñu wax na la ñuy dundé mbir mi. ñepp mënu ñu jall ci pont bi parce que pression yi nit ñi seen soxla yi du benn ñeneen dañu yàkkamti ñu jël grand tour ba ci pont bi surtout ñi dëkk côté BS dañuy sonal c'est trop enclavé c'est pour cela ñeneen yi ils ont préféré ñu tëb jéggi dem doxi seen soxla lu gën a gaaw quoi. mais est-ce que gisoo ne tëb risque la parce que lii autoroute à péage. mais on a pas le choix boo yàkkamtee moom kay da ngay risque. comme ni mu ko waxee rek man ma fi ñëwee yàggul 4 jours laa fi am sama benn sœur laa fi seet woon Fama Salim fini nii la fa looju kii nii euh, frère am la quoi dama ko seet si d'ailleurs man li tam moko sax man mbooloo laa dëkk mais dama gis mu koy def rek mané ne ko def. kon ndaw mo leen ci dugal. ah pourquoi pas plus que mo gëna a gaaw kay il fallait ñu def. pas c'est-à-dire man euh, fi may fi may dem ak fi pont bi nek dafa sori quoi donc te fi amul pont bi mën a fi dem fo directement donc fi may jógee dafa sori bo mënu dem ba feulé donc fee dafa sori quoi motax may jaar ni amna risque mais. xam nga dañuy moytu quoi autoroute la waaw mais dañuy moytu rek xam nga mais fële moo sori quoi ak fu ñuy jugee tamit dafa sori waaw loolu tax. pont bi moo sori moo waaw tax donc fii peut-être erreur am na fii ci ci defar bi donc mën na am fi benn pont boo xamante ne ñi nekk fii dina leen jege même fay bi tamit defuñu fi arrêt ñi nga xam dañuy jóge Dakar pour dem Patte boo jógee Dakar pour amoo fooy di wàcc pour dem Patte d'Oie da nga obligé dem ba croisement Cambérène pour euh, pour mën a ñëwaat. en arrière pour ñëw Patte donc erreur la yoyep ay erreur yu gaay def la mais xamna bayuñ ci xel donc fi tamit djegi bi tamit non la dañu dañu defat erreur ba nga xamante ni mënuñoo mënuñoo jéggi fii donc dañuy ak mur bi tamit dañ leen di barré motax tamit ñuy ñuy on est obligé ñu jaar fi rek de risque bi quoi ginnaaw ba ñu jógee ci autoroute à bi dem nañ fii nga xam ne moo di pont wu Marché bi ba ñu fi ñëwee gis nañ ni pont bi dafa bëri ay gàllankoor loolu ndax lamp yi du ko guddi te pont bi dafa gudd trop te sori naag arrêt bi soo ñaanee arrêt foofu chauffeur yi duñ la may te gis nañ ni pont bi tamit fi muy wàcc ci biir ñax lay dugg presque ba ñu fi ñëwee nag am na ay nit ñu fi dajeel lii lañ xalaat ci mbir mi. ah li ko waral xëy na dëkk bee neexul rek parce que doom ku nanguwul liggéey nga defee leneen. te xam naa ne daan sa doole moo gën yenn yi parce que lu mu munti mel boo génnee gis loo méngool dem daane sa doole am loo jëfandikoo moo gën wax dëgg yàlla mag bu toll ne man génn di doxi farata nga fekk ko fa poña ko mayatoo ko nga poña ko nangu la ma yor loolu xam nga ne du jàmm lu toll ne maris ñu ne dëkku patron la war na am lampe nag nañ waxante dëgg parce que du tàkk du tak lëndëm kuruus laa wax ma ne la boo amul fit fii doo fi aw timis fii doo fi aw boo amul fit laajal keneen ku dul man fii ma ne la dem naa masa Castor ndugg ma ne kii oto bi may ma fii oto bi ne noo mu Cambérène laa la jëmee ña nekk ci oto ba yëpp ne ay dimbali ko mag la may ko fii mu wàcc ba pare ñu ne maire sax looy wàccee fii heure bi ma la leen ah di fii ku dëkk fii doo wàcce fii bu ma wàccee Cambérène na nga dox ba fii loolu coono la arrêt bi daal fii la ne te ma yee tax ñemewuñu parce que ñoom dañu ne bu ñu fi wàccee gendarme yi kii leen fayeku leen dañ lay yóbbu ba alaaxira bu ndaw billaahi nga delluwaat di wëñ dëpp di ñëw sans daal ngay am daje ko am yërmande ñu wàcce la fi boo dajee nag ku am yërmande xam na kii ka jigéen a ko jur dina la sarax wàcce la fi waaye boo daje wala ko am yërmande da lay yóbbu ba Cambérène laajal keneen ku dul man Cambérène ngay wàcc di wëññeeku di ñëw dama ko ragal te yàlla tax parce que fi xam nga ne ku nekk xam na ne fii pour oto la xanaa xale bi dama ko ragal te yàlla tax wóor na yàlla yeneen tabax ah ñun nag bu ñu sañoon nag wax dëgg yàlla te yàlla tax ñu leeral parce que bu leer amee sax xëy na ñu daw parce que bu leeree tey ku mel ne kii bu ma gisee may aw fii ñu may def duñ ko ñeme sax parce que bu leeree ñëppaa lay gis ku la gis ñu lay def na sadul noonu ah dina la ah xaaral ñu daw wala ju meer be mais lëndam ma tax ñu ñeme te fii lëndam man de abadan lëndam laaj fi gis lëndam lëndëm rek lëndëm suba lëndëm midi lëndëm ngoon. waaw mais xam nga su fekkente ne dañoo def bëri agro cela veut dire que sécurité moom moo des daal donc am na ñuy jëm fi yenn heure yoo xam dañuy dem liggéey heure yooyu su amul comme agent bu toog fii par exemple doon surveiller loolu tamit dina favoriser ay agressions yu di bëri mais su fekkoon am na koo xamante ne peut-être ay agent dañ taxaw fii aussi nit ñi bañ aussi di. jéem a jéggi tali bi parce que fële na leen dañuy dem ba fële soog fay jéggi te alors que pont baa ngi ni pont bi dañ ko construire pour nit ñi dafi jéggi loolu moo tax nit ñi dem di jéeg fu gën a gaaw souvent dañ leen agressé. waaw mais agresseur yi xala xala kii wut xalaatuñ lampe léegi man bi may agressé ak sa moto c'était après tis takkusaan donc nit ñaa ngi daw dañ ma agressé boo xamante ne sama moto lañ ma agressé mais yor sama moto léegi je préfère marcher donc maa ngi dox ci pont su ma teelee wàcc ñibbi yéex a

yo xam kenn day taxaw feulé au moins mu djema euh, agresseur mu meun djem len di siyaale quand même. bon ces temps-ci on a constaté que euh, agression yi mom bëri na fii parce que il y a euh, yàggul yàggul noonu jàpp nañ fi agresseur bon dóor nañ ko fi bon finalement bon je ne sais pas peut-être rendre na l'arme. bon aussi il y a moins d'une semaine feulé man fekkee na sax ben waa ji bon ñu ko ñu ko agressé oui bon puisque je n'y pouvais rien bon manque d'insécurité bi fi parce que bon maris li ma constaté si maris bi bon xam nga ku nek euh, sa bop nga tal quoi bon c'est pas comme dans les autres quartiers de la banlieue xam nga banlieue bi mom bon lu bon euh, bu bu dara amé rek même ku yuxu rek ñeppay ay jóg pour kii mais fi maris ken talul euh, ken ku nek sa bop nga tal bon daan ma gis lamp tak quoi mais aussi ça ça fait partie de de l'insécurité aussi bu ñenn ñi di aw ci autour à péage bi amna ño xamné aw ci suufu pont bi mo leen gënal amna benn yoon bo xamné day daal di feul ci biir mariste mais gis na ni yoon bobu dafa bëri ñax lool manque de lumière bi si la bokk surtout wa duñu tak autour bi fii yëpp ay né day lëndëm ba bëri wul nit tamit guddi bi fii xam nga suñuy gis nit yi di jaar ak manque de lumière bi agresseurs yi dañuy am fit ñew pour agresser nit yi ci euh, man daal lool la si man daal euh, impolitesse la daal waaw parce que boo boo boo respecté li la sa président defaral danga ko da doo doo doo def doo dem di jaar fee euh, si si autoroute bi te keroog rek maa ngi gis ay policiers du keroog rek sax yeneen jour ay policiers ñuy jàpp képp ku jaar fee dañ lay jàpp embarqué la. a ah, xanaa ñu xanaa ñu taalaat lamp yi rek defaat si li li ñu li li li kii sàcc nit yi li ñu sàcc. Euh, câble yi ñu wat câble yi loolu laa xalaat daal ñu ñu gën ko sécuriser comme ça duñ ko mëna a sàcc muy lëndamaat lool da la xalat non am na ay lampe mais amul sécurité quoi amul kenn ku ñu mëna a wala genre yoy quoi surtout si non en général bi moy tak à péage mais pas bu suuf quoi. Uh-huh. moom bokku ci civisme quoi parce que pont yi on dit de passerelle dañ nan pour ñu jaar ci quoi autoroute pour oto yi la quoi pas pour nit ñi waaw. pour loolu maa leen appelé pour ñuy jël pont bi quoi moo gën sûr. mais ensuite pont bi tamit amul sécurité parce que tamit day am ay agressions yu fi moo taxit. waaw man maa leen lancé appel bi ñu gën a sécurité bi waaw gën ñu jàppale si loolu quoi waaw sécurité bi ñu mën a am ay patrouilles tout ça dañu arrangé daal parce que ñun jeunes yi ñooy victimes yi quoi parce que man mi personnellement damay wàcc ay vers 1h euh, du matin <laughs> là si fossé quoi parce que souvent. laay aw quoi. agresseurs yi dañ ñu sonal ñun ñii surtout ñun baana yi dañuy ñubbi fii ci guddi ñu taxaw fii ci arrêt bi ñu kar ñu borom escouteur yi ñoo ñuy kar toujours di nangu saagu jàmbur yi di nangu suñu xaalis yi duñu agresseur du sonal nañu wit te ñun ñii dara taxu ñoo jox ñun daan suñu doole ak faj suñu soxla ak bañ gàcce moon tax a jox ndax ñu ngi jóge ba Sébikotane du ñëw di jaay fii waa chaque jour nag ñu ñuy dogaale fii te ñun sonn nañu tay nañ te ku ci nekk mënoo xëy nga ub sa kër ndax jaboot nga. guddi gi leen dogaale wala bëccëg. guddi gi timis bu xasee jot ñun amuñu jàmm bëccëg itam bu ay deux heures bu fi dañu wette yéeg di la agressé te surtout suñu arrêt ba fee boo fa demee tey da ngay doyal wax ñun di dañoo sonn fatta nañu arrêt bee ngay gis ne fi ñu jaay ne fee ne agressé chaque jour ñu ngi taxaw di agressé nañu. Amu lampa ñun waa Patte d'Oie li ñu bëgg ñun ngeen wutal ñu lampe dañoo sonn lampe amu fi lampa su commencé takk ñaar fan ñu daga fi li ñun ñu am lampe xam nga luma la lu ëppal at ñu lampa bi mo tàkk ñu jek jékki mu fay te lool yëp agresseur yi la ñun sonn nañu tàyyi nañu te ñu ñu maw ñu tok ñu baña a ndax dañu yor ay dom dëgg la xey ci tool li lañu nekk timis bu xasse mancé da ngay daw daw daw be son lool ne lool c'est pas possible ñi di askan bi dëkkee bi Maristes rek ngi jooy di ñaan gouvernement bi ñu aider leen taalal leen lamp yooyu nga xam ne mooy traversé chaque jour ñu ngi ci jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri. dinañ leen fi agressé dogalal leen ñu yor ku yoru francs mur na lool. mbokk ci Today News di